Ahmed Boun Abdallah Dionne nekkoon fi inimaanu jëwriñ moom candidat la ci atum 2024 ci nga xam ne koy mooy élection tabu njiitu réew xaar sax mu rocc li nga mooy candidature am waaye nee daal mukk du ci moom samp na ndëndam noppi ñu bëri yaakaaroon dana topp tànk ki nga ne mooy Abdoulaye Daouda Diallo waaye loolee dara amu dafa mel ni kat moom dafa daal di yaa fas yéene ànd ak ki nga xam mooy Aly Ngouille Ndiaye wala sax Mame Boye Diao loolu la jàpp na kat ay candidature yu nga xam ne laaj bu samp la wala sax dafa dal tey xel lan mooy ila ji dëgg lan moo làq ci ginnaaw comme Macky Sall yaakaar ne ñëpp dañoo war a topp ki nga xam mooy Amadou Ba waaye ñu bëri daal dañoo lank ba tëri ci naaj wa ndax lépp daal mën na yaakaar ne ci nii ak ci nele ñu bëri nar nañoo jàppante ci waa benn bokk yaakaar waaye tamit ci jàppante dëgg moo leen di xaar ndax gis seen ne candidature yu bëree bëri ma ngay wëy waaye am na ay risque sanction yi nga xam ne électeurs yi kat ñi ngi leen ciy xaar kon ci nii mbaa ci ne gis ne candidat yi lim gi moom takku na ba romb na sax juróom fukk kon candidat bi nga xam kat moom moo ci gën a pasteefu bu ndefu ndànk rek moo nar a jàll ci ñaareelu tour bii waaye tamit ak hypothèse d'école électorale bu ñu mën a teg gis nañ ne ci possibilité bi nga xam ne benn bennoo nar na ko am ci wàllum defet alliance pour la moom nee na candidature ci nii mbaa ci ne benn rek lay doon amut leneen kon ak lu mënti xew ñi ngi envisager naam lim bi nga xam ne kat nan la nar a wàññeeku ci seenu pa li nga xam mooy suffrage kon ngelaw li nga xam ne kat moo daal di jëb ci daal di fas yéene indi ay coppite ci euh, liggéeyu askan wi gis ne kat ci pouvoir bi wala ci kujje gi ci nii mbaa ci ne dafa mel ni kat bennoo moom amatul muy ci kujje gi wala ci pouvoir bi majorité bi ñoom ñëpp daal ku ci nekk ci terrain bi ma ngay def nank bañ a rek daanu ci ndëgg sarax kon tamit daañu mën a exploiter ci xel mu dal contexte électoral bii idée yi nga xam kat moom lañ war a daal di teg daal di koy fësal ngir coppite mën a am bu ko defee mën a dagaanu baatu askan wi waaye politique nag moom dañuy envisager rek ni présidentielle à haut risque la ndax ak lu mën di xew rek mën nga cee nërmeelu comme mën nga cee rek askan wi tungoom la ba faw